Abrazo, Fe. sama xarit sama daw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom di bëggee képp kuy bëggee Ndiaye Tine képp kuy supporteru Ndiaye Tine maa lay nuyu di la ziyaare di la wax ngeen ñaanal ñu ci bés bi ñu jublu yàlla suturaal ñu may ñu ndam bu loolu paase di maa ngi nuyu waa Colobane bi yëpp bu ma limee damay juum waaw naa Fass Bawol ñëpp bu ma limee damay juum waaw di ziare ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp ku teew fii kontaan naa ci yow waaw di nuyu champion Bawol yi yëpp waaw di ko jiital ci sama mag Tafa di nuyu képp kuy takk ngem dekk Bawol di la ñaanal boo amee combat yal na la yàlla saa may ndam lu set wicc waaw. noonu la gis nga ngay waaj combat sa digganteeg du ma laaj sax naka nga koy waaje ndax njort naa ne bi Tapha Tine di waaj yaag moom yéen a ànd ci wàccaay li naka nga waajalee Baye Mandione waaye comme ni ma doon waajale mbir yi ma doon waajal rek waaw di entraîner njaatin moom ku ko xam di entraînement nga ko xam xama ko ji leneen waaw waaj fépp rek lépp lu combat bi laajoon def nañ ko di xaar yàlla suñu borom mi moom moom ndam te di ko maye mu teg suñu loxo le neuf loolu lañ koy ñaan xam nga Baye Mandione xam naa ko rek comme yi ma doon bëri la rek waaw noonu la demee waaw dañoo gis ne sa yomb xeex bi da ciy bari te da ngaa ñu gis ne Baye Mandione moom tamit xeex moom daanaka daa mel ni euh, wóor naa ci guurum soow la sa diggante ak Baye Mandione est-ce di nga xeex ak Baye Mandione lu lam ji laaj rek ci kattanu yàlla dinañ ko def andi nañu lépp jàng nañu xeex jàng nañu bëre lépp rek loo xamante ni bu ñu ko defee dinañ am ndam bés ba dinañ ko def ci kattanu yàlla waaw instant bii nii lan lan la bés bi laaj instant bii nii. bés bi li mu laaj ndam rek la laaj laajul leneen ndam rek la laaj ci kattanu yàlla te bu soobee yàlla am nañ ci yaakaar ne nañ am ndam ci kattanu yàlla. parce que liggéey nañ luñ ko jox maa ngi profité di nuyu sama coach yi duñ may teg lu métti ku mel ni Bodian Mbaye Ndewane Ibra Diagne Ablaye Gueye waaw duñ may teg lu méttee méttee méttee méttee métti ngir ngir Ndiaye Tine gagné combat am waaw noonu la demee. tey gis nañ bëri ci décision arbitrale la koy jeexee te yow yaakaar nañ ne sa combat ak Baye Mandione Junior doo àgg foofu. non mënut a foofu parce que waa ji sunu combat combat bu neex lay def parce que du xaar te man du ma ko xaar combat bu gaaw lay nekk ci kattanu yàlla. waaw lan ngay wax sa fans yi ngir ñu sawar moom li ma wax ku leen gis su rek xam ne fans yëpp képp kuy bëggee Ndiaye Tine rek pare na waaw képp kuy bëggee Ndiaye Tine rek pare nga pour ñëw supporter si bés bi. noonu la demee bëggoon nga lancer benn message parce que gis leen di wax ci non supporters yi Ndiaye moom duñ ko def képp kuy bawol bawol sax xamoo si xamoo violence waaw bawol bawol xamul violence. bawol bawol xamul violence waaw ñooñu ñeneen lañ koy wax waaye du du bawol bawol noonu la demee nag. mën mën naa ne combat yi combat euh, man adversaire boobu mënu maa jaaxal parce que ñi may kontaagal ñoo ko gën a diis ñi may kontaagal ñoo ko gën a diis kon mënu maa jaaxal bés ba mënu tànn leen loo te nii war na ma mën a jaaxal ci diggéew bi te du am ci kattanu yàlla lu mu mën doon déggoo li ma la wax déggoo li ma la wax xanaa nee naa la di ñoo pare fépp boxe nañu contact nañu physique nañu lépp luy maye ndam daal def nañ ko waaw di ñaan yàlla ànd ñun fu sore sore la ma mën a yóbbu sax parce que Ndiaye Tine li tegoon ci li ko tegi booy taxawal fii di balbal yi am kuñ fi joxut avance bu Ndiaye Tine nga tegi kooku waaw non non man damaa xus sama yoon de man damaa xus sama yoon waaw neuf combat laa def benn woyuma nag ragu tafaatin la damaa xuus amut combat sama seetaan ngeen sama combat yéen a nii amut combat boo xamante ne nii bëri naa ko combat boo xamante nii combat bu yëm la damaa ñëfe sama combat ba yàlla may suturaal di ñaan yàlla mu continuer continuer ba ñu jéeg dégg roi des arènes bi ci kattanu yàlla te di ñaan am am nañ am nañu gëm-gëm bi am nañu gëm-gëm bi am nañ patience bi te du soobee yàlla dinañ ci taxaw ba gars yëpp xam ne taxaw nañ ci ci kattanu yàlla waaw. waaw di woo lan ngay wax lan ngay wax Baye Mandione. waaw li ma koy wax bariwul lu nof bariwul lu nof soreetul li ma koy wax bariwul deux jours a jees xam nga trois jours di ñaan yàlla yóbbu ñu ci bees beeg jàmm rek. waa di ziar rek waa di ziar mafia Njaay bi ci kaw. <laughs> waaw amul leneen. jeex na tàkk ñoom Sakho. Moussa Bambara. Seydou jeex na tàkk amul leneen. Eh, waaye amul leneen de. <laughs> waaw loolu dama ko ci sant gërëm ko parce que man toog naa ay yées gars yi xam nañ li may wax. li ma woote di ma wax ay euh, pour sama combat ak diw ak sama combat ak diw mu yàqu kenn xamul li mu toll bari na mais bu yàlla defee mu jël ko loolu dama ciy kontaan. te xam ne ñun ñooy maante xaalis waaw noonu la demee rek noonu la demee. reefan yëpp daal réewement bu ma limee damay juum maa ngi sant ñëpp di leen gërëm waaw di san sama gars yi sant nee ni ñoom Baye Sall Ndiame Maas moo ma defaral tiset bi sama doom ndey sama xarit moom Ndiame Baye Fall ñoo gën fii ci Baye Daaru bi waaw noonu la demee. waaw di siyaar ñëpp di sant sama benn xarit Maas Maas Touré borom marché Tilène maa ngi koy woo ci bés bi bu ñëw jàpp ci bés bi. ab képp kuy eh, autorité Colobane maa lay woo ci journée bi ngeen ñëw taxaw ñu ñuy assister seen doom waa noonu la demee waa di woo noonu la demee di woo ñëpp di woo ñëpp di siyaar ñëpp di gërëm ñëpp di am ne kontaan naa ci ñoom te bu soowee bés ba dina ñëw andi fula ak fayda yàlla may ñu ndam ñu ñib si Colobane yóbbu ko Réfane jeena